man bi may wax ci affaire Ousmane Sonko je me suis réveillé ma gis ñu def journal Les Échos affaire de viol et cetera ki ma ko envoyé ma ne ko lii c'est pas bon baaxul mu ne ma ah ni laa koy gisee. maintenant ce qui m'a surpris mooy bi ma ko dégluwee revue de presse ma ne lii bu fekkoon ne man jege naa président de la république dama koy ne nañ arrêté lii parce que musiba la. lan nga parce que da nga gisoon li. li nar a am c'était moo tax bi ma demee toog plateau télé ma ne ñetti nit kase ñoo ñi nga xam ne Ousmane Sonko la ñu àndal ñi nga xamante ne ànduñoo moom ak ñi nga xamante ne ce sont des sénégalais déçus de leurs autorités ba pare profité ci lii. moo tax man mi wax ma ne je demande à Ousmane Sonko de ne pas appeler les gens parce que boobu maa ngi woon ci prévision calcul. de ne pas les gens à la révolte ñu génn si si. maa ngi wax si émission bi ma ne ko bu fekkee ni mu may déglu bu mu woo nit ñi ñu génn parce que da nga xam ne lii day am et on a frôlé le pire dañoo am chance. ah bon waaw dañoo am chance. pourquoi nga ne on a frôlé le pire. on est en danger actuellement au Sénégal le président de la République est en danger. comment ça. waaw ah, gis nga tey le ministre de l'intérieur a parlé de force occulte je pense que dans son message sénégalais yu bëri ni ñu ko jàngatee dañu xaw a juum tey on a plus un problème avec la personne que le discours ki a tenu gis naa ñu bëri ñu fustiger discours am. mais le ministre de l'Intérieur dans un gouvernement c'est le deuxième ministère derrière celui des forces armées situation d'insécurité bi am nii moom discours bi mu def discours boobu la waroon def ministre de l'intérieur sénégalais yi Antoine Diome ni mu waxee noonu la waroon waxee parce que moom il parle pour l'autorité de l'État moom faluñu ko moom il a en charge la sécurité des sénégalais moom loolu mooy liggéeyam par contre ki nga xam ne moo war a dalal nit ñi parce que moo njaboote ñëpp te moom lañ fal c'est le président de la république moo tax discours bi président la république c'est ça son discours voilà il devait apaiser les gens il mais par contre le ministre de l'intérieur la posture bi moom c'est la posture de l'état li mu wax bu ñu ko transvaser ci réalité bi ça colle à la réalité qu'on vit bi a pris des bataillons de combat indi leen teg leen ndakaar le ministre de l'intérieur il n'est pas dans l'information il est dans le renseignement cest à que li muy yor lu précis la force obscure mais dañoo dugg si fii c'est pas une blague. mais fu ñu jógee. exactement dafa am lu ñuy wax la typologie des pays ñooñu bu ñuy opérer ni ñuy duggee Sénégal ni ñuy duggee Mali ni ñuy duggee Mauritanie du bokk ñooñu ñi ngi fii Sénégal di dund ak ñun dugg nañ fi observer suñu dëkk nu mu bindoo. socialement ak religieusement seen rapport yu bëri boo ko liree dañ naan Sénégal boo fi duggee boo yeewoo fajar jumaa yi ngay dégg soo demee ba ngoon avant ngay tëdd jumaa yi ngay dégg donc religieusement ils sont socialement ils ont une bonne structuration waaw léegi nag dafa am beneen forme d'infiltration bu ñuy jël dugg ci biir et c'est là où c'est compliqué parce que boo ko day wax on fait pas la dissociation entre sénégalais yi nga xam ne tey am nañu déception ci seen i jiit am lu leen metti situation bi nekk effet déclencheur ñu génn wane seen colère ak tey ñi nga xamante ni dañ utiliser mode opératoire yoo xamante ni pour nga dissocier ko ak sénégalais yi sonn di ñaxtu du mais ñi utiliser mode opératoire euh, mm-hmm. yooyu ñu jëlee ci force occulte yi. Mm-hmm. ce sont des sénégalais de souche. Ouais. ce sont des sénégalais. Ouais. de souche c'est ça moo tax ñooñu ils sont là moo tax man le président de la république tey. lépp lu mu jàpp daf ko war a bàyyi te gis nga bu ñu deful nànk ba mu jafaat ba affaire bi tàkkaat l'armée va prendre le pouvoir. oh là là mais balaa armée di jël pouvoir tey les forces de défense vont s'entretuer entre eux ba pare parce que dafa am ñetti mbir yu nekk ci biir yoo xam ne dem na tey ba à maturation xam nga dëkk day toll foo xamante ni il faut parler cru affaire yi doo ko raay moo tax man la tey ñi mën a wax pour jàmm am. ñi ngi wax pour jàmm am te nañ wax pour jàmm am mais dafa am loo xamante ni du ay ñaan wala ay sarax cest que ki jiite kooku noonu moom moo war a def attention parce que tey Sénégal sotti nañ ci essence ba pare xosi almet teg si mu tàkk loolu moo ci des. force obscure yi ñoo sotti Sénégal essence. dafa leer lu may wax nii du lu may liyaar di ko kii sa mi ngi fii taxaw donc y a beaucoup de choses actuellement au Sénégal yoo xamante ne dem nañ ba taxaw léegi président de la République. il faut mu teg lépp ci suuf mu woo sénégalais yi ci senegal pas ci boppam ñu liggéey suñu dëkk. parce que Sénégal dañu am chance bu graaw euh, Ousmane Sonko dama dégg benn tantam boo xamante ni dafa expliquer nu mu bokkee ak Mame Rawane bu Paal man soo demee Paal nga ne Mamadou Dieye waxuma la Paal si boppam mais tout le Waalo donc Gandiol et le koo fa tudd bokk naa ak moom. Ousmane Sonko ñoo xamante ne boo leen tuddee benn nit ngay tudd ñaari nit tudd Ousmane Sonko ñooñu élection présidentielle yi seeni carte dañ ko diviser par deux benn bi ñu jox ko Ousmane Sonko benn bi ñu jox ma ko samedi laa toog di ndekki ñu woo ma ne ma maire boobu dafa génn àdduna elle s'appelle Safi Bodian yaa na ko yàlla yërëm kon Sénégal lan moo tax tey ñu war a nekk fii di reyante di waxante. mais force occulte yooyu nan la provoquer le basculement. waaw mode opératoire bu compliqué la moo tax sànq may wax ne dañuy def de telle sorte que bu ñuy infiltré wu tey pour nga mën leen dissocier ak le malaise sociale des populations du nekk du yomb mais ce sont des choses très techniques moo tax ma wax sànq la typologie des pays voilà Sénégal tey socialement boo ko doon définir c'est un pays à fondement social imbriqué et hermétique. donc ñoom dañuy profité ci tension. Euh, ak malaise. la fébrilité bi la ah, fébrilité ambiante. Euh, pour kon kon li ñu gis keroog c'est pas seulement des jeunes. yu frustrés de la politique du non. gouvernement. Mm. ce ne sont pas seulement des partisans de Ousmane Sonko. qui ont voulu dénoncer une injustice. non non man le Pastef n'est pas comme ça. non donc, sénégalais si boppam violent wul en fait. donc am infiltration. dafa leer mode opératoire bi rek. on commence par les banques les commerces les édifices. de l'institution c'est ça leur mode opératoire on a pris des bataillons de combat indi leen Dakar ils allaient prendre le pouvoir c'est pas une blague ñan ils allaient prendre ñan ah, ñi may wax nii les forces occultes là <laughs> waaw am na yoo xam ne mais ils allaient déstabiliser région moo tax man ne mais lan doon seen objectif keroog hmm? l'objectif c'était quoi ñoom seen objectif principal bu ñu duggee fii c'est de détruire le pouvoir religieux ba pare yàq tissu social bi et la finalité de tout ça c'est le pétrole c'est le pétrole moo tax bi affaire yi amee dafa am kenn ku ma envoyé message ne ma mais lan moo tax armée du jël pouvoir ma ne ko non armée <laughs> mën na jël pouvoir mais violence amagul mun lii de bul ko wax mu jëm kaw ma ne ko non yow laay waxal. li li am keroog du violence ma ne amagul ma ne ko xam nga armée buy jël pouvoir lan la lay def dañuy couper courant couper ndox on yëpp télévision et ko jël pouvoir noonu la armée di jëlee pouvoir ma ne ko violence. yàlla bu mu am Sénégal parce que violence gis nga dangay nekk ci situation yoo xamante ni ñun dañ doon jël ginaar cuisse de poulet jën dañ koy saaf bu mu xaw a ñor suuti ñu teg ko ci ay zinc parce que ñun on habite sous boo ñëwee pour togg ko da ngay gis nga baal ba ci kàddu bi moo am ay sax da ngay fëgg sax yi saaf ko ci dóor yi lekk loolu mooy violence walla ñu nekk ci situation yoo xamante ni ñànkatang ngay am xam nga bii maa ngi doon wax yàpp mais ñànkatang ngay am ñànkatang boobu boo ko toggee ba pare mango ngay jël baxal ko def ko ci lekk wala nga gis situation xamante ne da ngay dawal sa oto militaire jaar si flaque d'eau nit daw jël ndox boobu di ko naan te ça la violence. alors l'objectif de toutes ces explications. Mm c'est pour éviter quoi au Sénégalais c'est pour diir quoi au Sénégalais au président de la République. Mm -hmm. politique ñoom ñëpp tey li leen tax di coow yëpp. intérêt Sénégal kon tey kenn si ñun warul dem ci ay extrême ba yenn situation yi di am donc à commencer par le président de la République moom si boppam lépp lu mu jàpp na ko bàyyi lépp mu woo Sénégalais yi ñooy njabootam ñi nga xamante ne tey ñoo bëgg fauteuil bi mu toog mais ñooñu tamit nañu am respect ci institution yi institution kenn du ko fragiliser da nga koy dëgëral dafa am kenn koo xamante ne dafa ne dëgg bu réeree si pénc ñu wër ko suba ba ngoon kenn gisu ko nee na kilifa moo juum wala borom daraja donc y a des situations nga xamante ni bu ñu àndee ak suñu xel tuuti rek war nañ ko mën a régler am na loo xam ne ku mu jot si yow rek yàlla da koy def moo tax sànq ma wax ne yàlla si boppam mooy joxe donc yow defal sa wàllu nit mais sa wàllu nit boobu bu sa xol muuree sa xel rek yow bàyyi ma sax yaa ko gën a danger te foofu lañ dafa mel ni foofu lañ toll Sénégal nit ñi àndatuñoo ak seen xel sullante ay mbóot wax yu ñaaw yooyu kese lañ fi nekkee te coow yi yëpp nga gis nii suñ ko jëlee ñu pose ko parce que sa dëgg-dëgg amatul ñu benn njariñ Sénégal mais ñu posé ñeenti question ñu ne Sénégal fan la toll nan la fa tollee fan la ñu jëm nan lañ fa war a demee di nga gis ne trois quarts ñu nekk fi di wax ñëpp dañuy pousse parce que du ñu tontu ci question yi et ce que du question yi mooy le vrai débat. parce que tey dem nañ ba egg foo xamante ni ñu ngi retournement ba ma lay wax léegi si positionnement bi lañ war a jëm mais si on fait pas attention on va basculer dans vingt ans de guerre civile. vingt ans de guerre civile. waaw diggante ñan ak ñan. en tout cas si loolu lañ jëm. waaw mais yoo xamante ne nag man du ma si xuus mais si loolu lañ jëm. mais vingt ans de guerre mhm. civile. Euh, diggante euh, ñan gis nga li nga xamante moo ñu téye woon lu ci bëri effrité woon te comme lu ma dañu seetaan affaire yu bëri ñu dem tey ba màgg ba taxaw. am na yoo xam man ñemewu ma ko wax télé mais comme li ma la wax dañ koy xool nga koy gis nga xam ne lii day ñëw mais on n'a pas réagi. boo naan président de la République na lépp. Hmm. mooy ne même mbiru procès yi sax. nañu ko bàyyi les prisonniers ñi nga ay ñoom Biram Souleye ñoom Abbas na leen bàyyi ñu ñibbi na leen bàyyi ñoom ñëpp ñibbi donc yii yëpp ko teg ci suuf. la plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko yooyu yëpp nañ ko dindi yooyu yëpp amuluñu benn mais mais bu nekk en instruction. est ce que mun nañ ci dellu ginnaaw. waaw xam na loo xamante ni si réew nit ñi mën nañ toog ñu régler ko autrement mais si situation yi ñuy dem nii te lii dinañ ci waxaat on va en vingt dinañ waxaat si lii autorités yi s'ils ne prennent pas garde man maa la ko wax situation bu yéeme dina xew Sénégal bu yéeme moo tax ma ne la dañuy ñaan effectivement parce que loolu lañ xam mooy suñu réew ñun bëgguñu violence bëgguñu fitna mais tey jamono yi ñu toll nii li may wax nii ay calcul scientifique du jaas du jaas